jamono yu wees kii di président Abdou Diouf ak maître Abdoulaye wadd bindoon nañu benn bataaxal jagleel ko askanu Sénégal ak ñii di acteur politiques yi ngir rek proposer leen nañu respecter proposition président Macky Sall maanaam amal élection yi le 15 décembre 2024 coow loolu yépp nag li ko indi du lenn lu dul kii di Karim Wade bokk ci parti démocratique sénégalais dañ ko recalé ndax double nationalité ci kaw loolu nag kii di Karim Wade accusé corruption ñaari juge ca conseil exceptionnel la loolu jur fi ab coow lu dul jeex ak i manifestation ndax puusub élection yi gannaaw loolu ñii di waa conseil constitutionnel dañoo jëroon décision annuler décret bi président Macky Sall sukkandiku ci jëloon pour randal élection yi ba noppi sant président Macky Sall mu jàpp datu élection yi ci ni mu gën a gaawee 24 heures lañ ci teg kii di président Macky Sall bind ab bataaxal ni rek dina respecter décision bi nga xam ne waa conseil constitutionnel jël nañ ko présidentielle yooyu nga xam ne ci kaw loolu nag candidate bii di Rose Wardini dañ ko rek jàpp ndax coowal double nationalité fan yi ñu weesu mayoon nañ ko liberté provisoire moom Rose Wardini nag fas yéene jàkkaarloo ak presse bi ñu sukkandikoo ci e ngir waxtaanee ñaari ponk bokk na ci wàllum double nationalité nga xam ne yóbbee na ko mu def ay fan ci kaso bi ak lu ci bokkam ci élection présidentielle yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci E-Media moom Rose Wardini dafa fas yéene retirer candidat candidature am ci élection présidentielle ngir ñaari mbir benn bi mooy mettre à l'aise ñëpp ba élection yi du am benn problème ndax am na ku ñu recalé ci même motif ñaareel bi mooy respecter décision justice bi dal ci kawam ba décision yi di gën a leer